espace bi dafa fat fi ne kenn mënu tutal ñi wota son nañ fi ne ñi doon nak ay mourid ñi doon ni Tidiane abla ya nga ne kenn mënta wota ñi doon ni ñeseen ñi doon ni khadir espace amatu dañu occuper terrain ñi dañu doon ni murit ñi doon ni Tidiane ñi doon ni khadir affaire bi jeex nga ñew na cëpp ci jël kenn xam nga li tax affaire bi sof moy waaw yow mi wax bu fekkon da nga juddo won ci ginaaw Arabie Saoudite ñew sax ñu xam na gan nga ba yow sa baay ak sa mam kadior gi la juddo won ak ba ba ñu xam la yow nga ñew jangi ñibisi ñenti téré bëgg contrôle te bëgg duggal ci boole da ngaa ku bees ku nu mën a convaincre moo tax dégg naa keroog koy wax naan man li ma jaaxal mooy loo mën a wax te bokk ko ci benn tarixa duñ la faale li koy def mooy li nga fi indi nag da nga ko fay fekk ñëw yëtul lu bees te borom dañ laa xam nag nga fi nga juddoo sa ñaari maam ku ko topp gis ca ko doy waar doon doon doon waar lànk nañ loolu dong nga doonoo ku bees affaire bi espace amut tijaan yi pare nañ Pape Laye ngi ne mënoo koo gëm mënoo xaadir yi nag ñaseen yi laa ilaha illallah wasifa yi riir xasida yi yi gën a rokkosu gën a sakk ci sëñ Tuubaa na di leen aj ajal ak karkaral naan leen moytu leen taal yi takk boo leen ci ñun baax na ñoom sébbu bi nañ tàkk ndax buñ ca daanoo dee baax doy na loolu rek la waaw te koo ci gis li mu dégagé rek lay encaissé li muy dégagé rek lay encaissé bëgg àddina mbooloo dong képp ku ci sañoon xam ngeen ne sëñ mur sëñ Muntaxa mi daa ko daa daa daa daa kenn fi na am nañu takk addi yi di xaar mu ubbi bañ dem siyaare ji boole ko di joxe di jooy noonu la ñuy ràngee kër keneen ràng keneen keneen keneen ah boo demee fee ca Mbakke tey institut islamique bee ñu fay tabax ay Baay Faal koy tabax mhm. ñaata milliards a cay dem université bi ñaata milliards a ciy dem ah. waaye ku la daq jotu la nag lu for sànni la dëgg la te man aw xas xam nga kañ lay metti ci man hmm. xas woo xam ne man doo nga ko moom moo may metti waaye xas woo xam ne sa bàyyi nga ciy jiital ndax bo nee gëmo leen diine ba noppi wedd na sa baye gëmu diine kon ko xass du ko wedd sa xel dal sëñ Tuubaa moo fi nekk li ngay def sëñ Tuubaa tax nga di def kon continue